al ibadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam ndax bakkan boo ko bëggee bu yéeg da ko tàggale ci bon bonam te lekk ba regg bokk na ci li tax nit ci jëm suuf waaye lu mu gën a xiif sëriñ Mbàkke Bousso dafa daan wax ne moom nituk am yaram la waroon doon waaye sëriñ bee tax mu jeex takk ba mu ba ne ni ab xiiboon waaye bindam ak ay mbokkam nee na nit ku war a am yaram la bindoo woon waaye xiifal bu metti moo ko def nit nit ku mel noonu foofu la sëriñ bi tàmbalee kon du mbir mu yomb mbokk yi ku ko bëgg a yombal mi leen di nax sëriñ di yàgg naa soññee ci baax te it lu ne la daj nag jaraloon ko lu ne kon nit ñi not seen bakkan fexe ba moom seen bakkan seen bakkan bañ leen a moom ñu bari ci nit ñi nag coow bari na waaye seen bakkan leen moom bu xiifee duñ am jàmm te reggut su maree duñ am jàmm te naanut bu gëmmentoo duñ am jàmm te nelawut ak yeneen yi demee noonu ak loolu nag kenn du àgg fen ak loolu kenn mënta àgg fenn sëriñ bi tàmbuleeg taalibe yi ci not fexe bañ fexe bañ not seen bakkan ba moom seen bakkan foofu la tàmbalee ñoom ñaareel ba mu tëj ca àdduna àdduna bokk na ci noonu yi nga xam ne bari nañu yàquli àdduna leen yàqal looy def di ci bàyyi xel àdduna bu nit ñi santee gërëm coow nga ànd bu nit ñi ne cell nga dellu ginnaaw am na nit koo xam ne mën naa joxe lu ne waaye buñ dajee ci mbooloo kenn sant ko bu ëllëgee buñ ko laajee mu lànk kooku joxewut ngir yàlla kooku joxewut ngir yàlla addunaa ko tax di joxe sëriñ bi ñëw ne taalibe yi danaa leen tàggaleeg adduna àdduna nag nee na ku bëgg a tàggoo moom da ngay beru wa sijnu dunya uzlatun bi wa amalin li wajhi mu'til nee na kasub adduna mooy beru gànn ak xam beru gànn ak xam waxu dem tëj ci nekk te xamoo dara di làmmatu loo gis ne yàlla a ngi nekk te fekk du yàlla dañ lay xamal ba nga ne jar ba xàmmee door a ji nag waaye fii yaa ci mbooloo mi loo gis boo xëyee suba nett la ko gis naa dugg nangam doo àgg fenn ñi nam ma àgg ci yàlla dañuy ber seen bopp Sëriñ Tuubaa beru googu moo waral sanc yi doon sanc bi mu ñëwee Mbàkke mu xat mu dem Daru Salaam mu xat mu sanc Tuubaa gott woon boo xam ne ndox mu sa wala fii da mooy lan doomu aadama ji li muy gis di ko dégg mooy dugg ci xol teg ko rek environnement bu baax la ko wër lépp ci lu baax bu yàggee tuuti nga am ko baax foofu la sëriñ bi yóbbu nit ñi beroog ñoom àll bu metti boo xam ne ndox amu fa ngay dund ñu dund yi metti di leen liggéeyloo guddeeg bëccëg sëriñ Bachirou nee na bokk na ci lim tàmbaleeg mag ñi liggéeyloo bu metti ndax yëg na ne barab bi mu nekk nit ñu tayeel ñoo fi nekk nit ñu tayeel ci ak tayeel kenn bu jariñu mu fexe ba seen yaram sawar di leen tàggat ci liggéey guddeeg bëccëg ñuy liggéey bu fexe ba tox seen ba àdduna kenn ci ñoom xalaatut àdduna jëm ñi adduna wan ko ginnaaw bokk na li firnde loolu bi mag ñi ñëwee mba Tuubaa ba mu tàmbali ñenn ñi mu wàcc leen sant leen ñu sampu kër am na ne ndekete sampu kër ci mbir yi la bokk ñoom bàyyi woon nañu àdduna ba jàpp sax sëriñ bi du leen mës a diggale ñuy sampi kër ñooña wuute nañoo ñi nga xam ne tey kuñ doxal ñaari fan ne la sëriñ bi war na maa seexal war na maa def nangam ñoom yàlla leen taxoon a jóg yàlla leen ñor àdduna mosu leen tax xëy mosu leen tax a gont moo tax lu leen fekk ci àdduna rek bénéfice bu leen dab la waaye la leen tax a jóg du lool kon yaroon na leen ci tàggale àdduna bi ci des ak seytaane seytaane it bare na ko yàqule moo ko yàq sëriñ bi fexe na ba tàqale taalibeeg seytaane ci nan zikrullahi taala taqale leen seen làmmiñ ak tudd yàlla guddeeg bëccëg ma ngi nee na bi ñu sancee daaru salaam bu mosaan ak julli timis ci jàkka ji sikkar si ñu def moo koy dëbbe ba gee mu jiite leen gee door dugg ci kër yi jàng naafi la guddeeg yooyu ana sikkar soo sa tey nit ñi nit ki boo bëggee mu baax mucc ci seytaane day taxaw tur yàlla waaye saa boo soree tur yàlla dañuy wax ne seytaane wan ak sax dañ lay wax ne boo ci dugg wax bisimilah jàng ñaan gi ñu war a jàng seytaan day daw waaye saa boo ne saraxti wan ak tuddoo yàlla loolu fa dal yaa teg sa parce que saytaane dafa bëgg barab yu taq yu tilim tur yàlla rek koy dàq kon ci tur yàlla lañuy ñuy mucc ci saytaane barab bu ñuy nodde yu bari saytaan day daw pour nodd gi daanoo mu del si kon foo xam ne waxtu war ñu ngi tudd yàlla saytaan du ko jaar kon ci ci loolu ci taqale leen ak tudd yàlla bu dégg bëccëg ñu jàng alquran di zikkar laa ilaha illallah di jàng xasida ci loolu la ànd ak ñoom ba seetaan daw leen ku ci seetaan di seen ci daw loolu it yoon yu mu jaaroon ngir yar mag ñi la bokk bi ci des te mooy tàggal leen seen bànneexu bakkan bari na nit ñoo xam ne it bànneex lañ topp sëriñ bi ni mu leen tàggaleeg bànneex mooy taxoo noppi daa wax ne bànneex noppi ci wax ju amul njariñ moo ciy musal nit saa booy wax rek bu yàggee bànneex dugg ci léeg-léeg nga wax ba juum bànneex tax buñ la nee da ngaa juum doon nangu wéy ci ay ay wax ju amul wax ju bari ju amul njariñ bari na ku loru moo ko yonent ay salaam nee na yowmal xiyaam ñu ëpp ca waa sawara seen ayu lab seen wax moo leen ko yóbbu ñu ëpp ci waa sawara lu ñu wax te waruñu ko wax moo leen ko yóbbu te tey nag nit ñi jàpp nañ ne wax ku la daq wax rek moo la ëpp moo la ëpp bagage wax ju bare bare joo xam ne doo gis jenn jëf loolu amul solo mbokk yi sëriñ bi taxoon na mag ñi xamuñ ay wax jataay day rëy lool doo dëgg genn kàddu xaw damit te duggoo waaye il faut ñu boo xam kon jàngoro la mooy feeñ ci suñu kër yi loolu nag njabootug sëriñ Tuubaa waruñ ci woon a bokk ndax seen sëriñ sunu sëriñ lam leen yarakoon ak fu kilifa nekk doo yëngal dara te néewul la yëngal ko loolu ci la sëriñ bi woon nit ñi loolu it dañ ko bàyyi xel baax a baax ci yooyu la sëriñ bi tàggate woon taalibe yi bañ teel a ràññiku ràññiku gu fés naa ci joxe benn misaal maam maam xaalima jaxate kala rahimahullah benn bis bi muy gor yaakaar naa aynu maadi la maam na Cerno Birahim la santoon mu boole ab ay taalibe yu ko goral bi taalibe yi ñëwee maam xaalis sant leen liggéey bi ñu liggéey ko ba mu noppi yéem gugu taalibe yi yéem tax mu def ñoom wax xasida rek doy na doy na ñu wax ci dane mu rabbaw na ay nit ñu ñu yar ay nit ñu ñu yar la wax xad raddu min aswaatihim raddaam ka absaarihim xatta yuzannu ma an marda araadu atibba aw masaakiina hammuhum dawu sadaqaatin muqridu rabbihim qarda nee na ñi ma gis de ay nit ñuñ yar lañ ñoo xam ne ña ngay damm seen kaddu kenn dégg seen kaddu naka noonu it ña ngay damm seen bët kenn du si gi xool nit ba boo leen di xool dangay jàpp ne ay malaat lañ yuy gi yuy wër docteur bu leen faj wala ay masaakin lañ yu seen ay saraxekat ñu yërëm te bëgg mu sarax leen nee na ñi Sëriñ Tuubaa yaroon nii lañ mbokk yi ana ñooña ak mu rabbaw na xat raddu min aswaatihim xadda kenn dégg seen kàddu te boobu mbooloo lañ andi buru nee na dañuy damm seen kàddu damm seen i bët ba boo leen seeyee da jàpp ne dañoo feebar wala dañoo xiif bëgg ku leen sarax ci biir wax ja mu wax ne walam yalqa minhum waaxidun ajnabiyatan tuxaadihi illa wa huwa atraqa aw axdar nee na ku ci dox ba dajeeg jaamur bu jigéen du mooy wala nga sëgg waaye xalaatuñu xool jaamur bu jigéen ne seen kàddu boo ko déggee tudd yàlla la nee na waxuma la farata waaye naafilu duñ ko faat fa maa rafaxu aswaata illa bi dikrihim wa maa axaru awqaata naflan wala farda ñooñu la Sëriñ Tuubaa defaroon bokk yi koo xam ne nee na waxut naa fi la waaye farata du ko tarde ci bàyyil xel ay dongo yoo xam ne dañ leen woo ci liggéey ñuy gor nee na ci biir gor bi bu julli jotaay ñu naafi la julli farata def naa fay dendal ci liggéey bi kaddu gu yëkkati tudd yàlla la kenn du yuuxu kenn du ngàlleku tudd yàlla la nee na saa bu ñu rombee jàmbur bu jigéen du moy te loolu sëriñ Bachir wax na ko sëriñ bi ci ab yaram mu ngi leen tàmbulee yar leen ci xiifal leen ak liggéey bu metti ak nag moytuloo leen jaxasoo ak nit ñi rawatina jigéen ñi moytuloo leen jaxasoo ak nit ñi jigéen ñi waa na ku jógoon jëm ci yàlla jigéenu ko tey ak dañuy muucu leerug nit te am na ñaawteef yoo xam ne ku ko séq ak ñoom mënatu am cër ci yàlla yu bari nit dana doon naan kotum ñollu dana doon def lu ne tuub ko yàlla jégal ko mu mel ni si def dara waaye ruuri tool ku koy def amutoon noppi nga am cër ci yàlla lu mat a moytu la mbokk yi yooyu mën naa bàyyi xel yar boobu nag sëriñ bi ñi dëkkoon ci moom sëriñ ba Basiru nee na ñaari xeeti nit lañ ñoo xam dañoo ñëw jébbalu waaye tooguñ fi sëriñ bi dafa leen doon waar di leen dénk ñuy dem sabu mu ne ñëwaat ñëwaat nga xam ne ay wax ci waaye am ñoo xam ne dañuy jëbbal ko seen bopp bàyyee seen bopp ñooñu la doon jaarale ci yoon wu tar wi ànd ak ñoom ci fu metti fu tàng kenn du jàmbat waxtu wu ñu ngi muñ mu leen delloo ci yàlla seen boroom di leen xamal ne suuf si lu fi yëngu yàllaa ko yëngal bu kenn ragal kenn ku dul yàlla boroomam ko bind xaaloolu yar kan jafiri na ko xaaloolu yar kan li aboobi salatini taxus jawaisa tuxni kulla maxini fa qultu bi rabbi waktafaytu bihi walastu raadiya xayril ilmi diini day wax ba naan fa kay fa arju dégg di di leeral nit ñi di leeral nit ñi fu nit war a nekk kilifa gu rëy ko doon tëkk te booba dafa dem seeti ko ngir bëgg lu baax mu tàggoo bëgg a dem mu bëgg ko téye jëkk jàppe bi dong fekk sëriñ mi ku amul dog la ba mu ko bëggee téye di ko tëkku ca la ko dafa bayit yooyu ngeen di dégg addur wa nafu min arrahmani laysa min al bitaani wa sudaani na nga xam ne lore ak njariñ ci loxo yàlla nekk nit yoru ko kenn mënta jariñ kenn kenn mënta lor kenn te yàlla andu kon wéeru leen ci yàlla seen borom foofu la nekkoon nit ñi dafar leen dafar goo ne yàqu weesu na ci ñoom kon yar na leen ba not seen bakkan moom seen bakkan yar leen ba àdduna jaralu leen xëy jaru leen gont bu ñu lay jox ngir yàlla ngay sant ak ngay xarab la jamaay faaw ñu jox la waaye kuy xàmmee ñaaw yooyu joxe woo ngir yàlla kuy yëg sa bànneexu bakkan di bàyyi xel sa bànneex am yu lay neex yu dëkk wuute yàlla wala yu lay naqari te du yàlla su boobaa deseeg ba tey sëriñ bi ñooñu la foofu la jaar la mag ñi mu yoon wu tar wu tàng woo xam ne ku la ko bëgg a yombalal da lay nax niñ jàppee ni lekk léeg benn waaye xëy rek ne la boo dikkee ma diir bu gàtt ma yóbbu la ku demul fenn mënta yóbboo fenn bari na ñuy woote ñoom ci bopp demuñ fenn barab nag boo xamul dëkk boo sa faa dem mënu faa yóbbu nit mbokk yi nañu bàyyi naxante bi ku yàlla nopp ci yow ku yà sëriñ bi defar bañ mel ni war a mel la koy firndeel di ko jëmmal mooy la sëriñ bi waxoon jaawartu bil furqaani rabbiyal mu'in a ngay dem ba dëkkaale yàlla lépp lu la wërët yàlla ngay bàyyi xel kenn du la jaral yëngu kenn du la jaral dal kenn mënu laa def loolu naqari gaa ñu baax ñi saa boo leen tooñee sax dañuy wax man lu ma def yàlla ba yàlla na tooma jàmbi di ma tooñ waaye fii yaa ngi gis sa bopp lu tax mu may def lii lu tax war maa lu ma lu tax mu manqué ma des nga soo matee lu la lu manqué ci yow rek da ne yaa def lu defuwut ba tax yàlla na toolu ku mat noonu lay mel waaye jaawartu bil fuqaani rabbil mu'in lu mu ci teg malaktu nafsi bakkan dañ koy moom ba foo bëgg mu jaar fa ku àgg foofu àgg la sëriñ bi na malaktu wasax saxatul laxit iblis moom mooy ki nga xam ne amul genn anam guñ ko mën a jariñoo na dem rek nga dem waaye axastu min duniyaahu zaadi lil jinaan adduna daa am luñ ci soxla ab yóbba la ngir dem aljana boo liggéey li ci am njariñ ngay jël la ci def nga sànni ko jàppe ko ay tool yooyu xëye ko gon wan qaada lil hawa sama bànneex nag sama ginnaaw la topp waaye topp ma ci ginnaaw wali safal janaan moo tax mu jine raafaqani kon ilal jinaani jiibu ba na ñett ñi ñoo ànd maag sama bakkan ndax moom naa ko ba fi ma bëgg lay jaar ak àdduna ndax jël naa ko daf ko yóbbal ngir àllaxira maag bànneex ndax sama bànneex maa ko jiite waaye ko ki ci des nag tàggu na ma moom muy seytaane rafaqani ilal jinaani jiimu wala siwaaye zox si har foofu mooy yoon bi ku fexe ba ànd nag ñii defar leen ba léegi yaa leen di wama déglu ci yàlla seytaane ngeen tàggoo mucc nga ñu bari ci nit ñi nag tëwaguñ seytaane bis bu yàlla sàkk mu leen diggal ñu def mu leen tere ñu bàyyi foofu nag fépp jëmmuñ fa nañu xam ne àggugu mbokk yi ngir ñu àgg dalañ dajale bay di kenn ku ne mën a wax ne moom naa sama bakkan te muy dëgg waaye bari na ñoo xam ne seen yitte àdduna kese jaral na leen jaay lépp ñaawteef yi ngeen dégg jamono yépp ay nit ñu bëgg a sottal aajooy àdduna képp la ñuy sàcc alal jàmbur du faat ay bakkan dafi ñaawteef ñooñu defaruwul jegewuñ ak defaru Serigne Touba Serigne Touba ñu nappoon ci ñoom mala sax duñ ko rey ci lu aajo mala bari na ci ñoom ñoo xam ne ay kaaf lañ amoon ak i wanag di fa def ay ndox ngir ay picc ak yarab yàlla ñu naan mbokk yi loolu mooy yoon